actu du jour ñu jukki leen li gën a fës ci biir internet bi dañu koy dooree rek ay arrestation yu nemmeeku rek niki démboo ci altine ji mu bokk na ci kii di Assane Diouf rek ginnaaw ba ñu ko bàyyee rek récemment moom Assane Diouf nag dafa daal di def rek ab vidéo di wane rek waa division des investigations criminelles ni ñu débarqué rek démb foofee ca këram ngir bëgg koo rek daal di jël si waaye buñ sukkandikoo rek ci avocat bii di maître Khoureychi Ba lam ñu xamal rek ginnaaw bi Assane Diouf rek seqee ab appel euh, téléphonique ak kii di Clédor euh, Sène ak beneen inconnu ngir dénk leen rek benn tâche rek niki ci euh, talaata ji ndax tey ji dañoo woote woon rek benn fippu ginnaaw rek bu ñu lever l'immunité parlementaire bu Ousmane Sonko ginnaaw bu ñu tegee ci ndoddam rek lii di viol ak menace de mort jëm ci masseuse boobule di Adji Sarr ginnaaw bi Assane Diouf jàlle dañ cee daal di teg rek kii di Guy Marius Sagna moom mi nag dañ ko daal di tegaale loxo en plein rue bi ay vingt heures mu génnoon ngir wut rek lu mu lekk liñ leen di reproché nag nekkul lenn lu dul délit de menace de trouble à l'ordre public et acte de nature à troubler l'ordre public ginnaaw ñaari arrestation yooyu nag amaan na beneen bu ko ñetteel mu di Clédor Sène moom nag dañ ko daal di teg loxo bi ay cinq heures du matin jotee moom Clédor nag avant ñu koy teg loxo daal di xamle ne kii di Pape musa Sow nekk membre du Clair Vision moo ko fuité rek benn benn audio boo xamante ni bii rek seqoon na ko ak moom Pape Moussa nee na nag biir ojo boobee lam ca xamle woon moo di kii di Pape Moussa daf ko bëggoon rek invité benn émission bu mu amal rek ci benn site internet bëggoon koo invité nag talaata waaye nag moom Clédor Sène daf koo xamal ne ko loolee nag du mën a nekk ndax talaata ci la xeex bi di commencé ndax dañoo war a amal ab manifestation rek ci mardi bi loolee tax nag moom du mën a amal rek boobulee émission ak moom waaye kii di Pape Moussa Moussa dafa daal di génn rek divulguer boobule conversation bi nga xamante ni seqoon na ko rek ak kii di Clédor Sène ba tax nag waa division des investigations criminelles daal koy teg loxo niki 5 heures mu di ñetti arrestation yooyu nga xamante ni bii rek nemmeeku nañ ko mu di kii di Clédor seen ak Assane Diouf ak kii di Guy Marius Sagna jamono ji rek rek nañ leen loxo rek dañuy bàyyi rek lu ca ruusaniwaat ñu digtal leen ko rek ci suñu yeneen ni jotaayu xibaar ñu àddu ci leneen lancement campagne de vaccination wu Covid 19 bi gis nañ ne nag door na niki tey rek euh, ci talaata ji ñu gis rek di ministre de la santé et de l' sociale di Abdoulaye Diouf Sarr daal dina jël lekk première dose bi ñu gis ne nag moom nag ñàkkoon na première ñàkkoom rek te nee na lépp rek luñ ci jublu mooy xeex rek jàngoro ji rek di Covid 19 ñu fàttali rek ne Sénégal am na lu tollook 200 à doses waaye nag ci biir 200 000 yooyu séddale nañ ko rek ci région yi nekkee fii euh, ci. Sénégal waaye nag ñi nga xamante ni bii rek ñoom la ñu ciblé rek jamono ji ci yooyu les premières dose bokk na ci rek personnel de santé yi ak les personnes âgées ñoom nag la ñuy ciblé guna jamono ji jamono ji rek ñuy wax ak yéen kii di Abdoulaye Diouf Sarr moom jot naa jël rek li nga xamante ni rek moo di ñakkoom waaye nag bam ca paree daat na xam le ne du tax rek ñu bàyyi li nga xamante ni moo di takkum mask mi ndaxte ñàkk yi dina wàññi bu baax a baax jàngoro ji ni muy lawee waaye nag kenn rek dindi farlu gi mu farlu woon rek ci takku masque mi ndaxte ndaxte jàngoro ji ba léegi rek mi ngi fi boobulee campagne nag door nañ ko ndiki tey rek ci talaata ji ñu àddu ci leneen rek ci tawaaf bi nga xamante ni bii rek nemmeeku woon nañ ko ci diwaanu Touba mu di rek benn mouvement rek bu jugoon ngir bëgg a def rek li nga xamante ni moo di tawaaf ca jumaay Touba waaye loolee nag mujjeewut antu ba jotoon nañ caa jàpp rek six personnes bokk na ci Abib Jaban moom mi nga xamante ni bii rek moo jiite woon boobule mbooloo ak yeneen juróomi taalibeem waaye nag jamono ji ñuy wax ak yéen defoon nañ leen nag en garde à vue rek police bu Diourbel procureur bi niki tey rek ca grande instance bu bawal mu di tribunal bu bawal lañ war a janoo rek ak procureur bi niki tey waaye nag ci fàttali moom Habib Diabane dafa xamle rek ne moom ab prophète la te nag moom moo ñëw rek ngir sauver l'humanité te moom mu ngi tudd rek Issa mission bokkoon ci mu def tour sept fois ci grande mosquée waaye loolee nag mujjee wuta antu waaye nag lañ leen tegee loxo bokk na ci rassemblement bi nga xamante ni bii rek am nañ ko koy tere ndax euh, mbas mi lëmbee mim réew ak charlatanisme ak profanation d'un lieu de euh, culture moom lañ leen rek tegee loxo ña nga ca parquet bu euh, Diourbel ñu àddu ci leneen wax ci député bi nga xamante nekkoon candidat ni ki élection 2019 yi ñu génn mu di Issa Sall soxnaam si nag di Ramatoulaye Diallo dafa wax ne kii di Issa Sall daf ko doon dóor rek dóor yu metti mu mel ne rek li nga xamante ni moo di violence conjugale daf ko doon amal ak moom rek ba tax rek mu daal di rek amal ab plainte rek dal di koy jëmal rek ci borom këram boobu boobule di Issa Sall mu koy demandé li nga xamante ni rek moo di divorce ginnaaw rek ci ay coups blessures yu metti méttee métti yoo xamante ni bii rek borom këram bi daal dina ko koy def mu mel ne rek soxna si nee na dafa bëggoon a génn rek ci moom waaye nag nee na ah, du yombee noonu nee na rek kii di borom këram bi dafa xotti passeport am dañ ko menacé rek de mort ba tax rek mu daal def ab boo xamante ni am na certificat médicaux moo tax rek mu daal di koy déposé ngir bëgg rek yoon daal leen di àtte yëfee nag door na lépp loo xamante ni fasaat na ca rek daan leen ko laata ci suñ yeneen jotaayu xibaar dañu koy daal di jeexalee rek ak Ndeye Khady Ndiaye muy propriétaire de suite bëti boobee rek nekk patronu Adji Sarr moom nag la mu xam ne rek nii ki démb ci ab entretien bu mu siqoon ak suñuy naataango xam ne ne moom rek fi mu nekk nii dafa tiit lool ndaxte dafa am ay soxlaam war a koo doxi waaye mënu koo doxi benn yoon ndaxte ay menace de mort yoo xamante ni bi nga ko jot rek ci téléphone fixe bi nit ñi rek di ko di ko xamal ne ko bis boo génnee rek sa bopp sa baat dinañ koo tàqale nee loolee lu ko gën gën a moom amul ndax moom nee na dafa am ay soxla war koo doxi waaye nag daan na ci toftalaane kii di aji saa depuis rek bi yëf amee ba tey tegu ko bët gisu ko benn yoon te nee na lépp loo xamante ni rek ay bagage la yu mu fi amoon Adji Sarr daal na koy roñ rek ba mu set wecc ba tey rek confirmé waat na ni oto bu ñuul boobee rek moo ko fa daal di jël see rek ba tey waaye nag ñoom ba tey jii xamaguñ Adji Sarr fan na nekk rek jamono ji ndaxte du ab appel du ab message bu jugee ci moom rek daal di ñëw ci moom waaye nee na daal sonn na lool bëgg na tamit ku ko jàppale ndaxte menace de mort yi mi ngi koy dégg saa su nekk ñu ko koy xamal dafa am ay soxla war ko euh, doxi lii rek moo fi gënoon a fës ami internet yi dig daje doon ba ëllëg ak jàmm